sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراتي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أمواتي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 laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu zakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu àqate di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu dikkaat ak yéen bëgg ànd ak yéen ni ñu ko baaxoo defee ci ay bis bu jot di jàngalante ak yéen di fàttalante ak yéen lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ñu doon ànd ak yéen ci suñu bind yi mujj yépp ci téereem bi nga xam ne moom la tudde Munawwirus Sudur te ñu nekkoon ak yéen ci buntu bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu tudde faslun fil kabairi muy buntu bi nga xam ne moom la sëriñ bi jagleel leeral ñu li nga xam ne mooy bàkkaar yu mag yi nga xam ne euh, jullit bi war naa moytandiku tàbbi ca bàkkaar yooya mu mel suñu bind bu mujj fi ñu taxawoon ñi ngi taxawoon ci ñeenti bàkkaar yi nga xam ne ay bàkkaar la yoo xam ne benn cër jagoo ko bàyyeeg sa moroom waaye bàkkaar la yoo xam ne saa bu ko nit ki defee mboolem yaramam wi yépp ñoo cay participer ca bàkkaar boobee mu doon ñeenti bàkkaar yi nga xam ne leeralan nañ ko ci bind bi weesu muy li nga xam ne mooy dogo ak sa ñaari way jur mooy ñàkke teggin sa diggante ak sa ñaari way jur wala lislaam woote nga bokk ca mbooloo ma war wuy ji di daw wala yàq alali jullit wala li nga xam ne mooy bàyyi julli kon lii aju ci loolu leeraloon nañ ko ci suñu bindu bi weesu suñu bindu tey fi ñu taxawe woon rek foofu lañuy sofe ba tey sëriñ bi di wax ba tey ne watruk na nga bàyyi sabilal axbiyaa yi yoonu way bew ña yoonu way réer ña nga xam ne dañoo réere suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye ñi nga xam ne dañuy moy suñu borom bi subhaanahu wa taala nee na na nga moytandiku yoonu ñooña waaye na teet seen yoon al mu'tadiina ñadi way jalgati ak njub wasluk te nga soobu sabilal azkiyaa i yoonu way ñaw ña al muhtadiina ñadi way jub ñi nga xam ne dañoo xam li suñu borom subhanahu wa taala digle ñu nekk ca di ko doxal waaye xam li suñu borom subhanahu wa taala aaye ñu koy moytandiku bu baax a baax a baax a baax kon sëriñ bi radiyallahu anhu anhu nee na na nga moytandiku yoonu ñi nga xam ne dañoo réer te jalgati yoonu njub waaye na nga fexe ba takkoo ak ñi nga xam ne ñooy way ñaw ñi te ñooña moo di ñan mooy ñi nga xam ne dañoo xam njub gi suñu borom bi subhanahu wa la digle ba pare jub googee ñu nekk ca di ca dox kem seen kartan euh, moo tax sëriñ bi ne hal anta ndax yow temps yi da ngay moy man sama boroom mi nga xam ne xaba moom moo maye moom moo daganal bil baixi ca aji dagan xatta taxuuda ba ba ngay xuus ab xural xabaaixi géeji bon ya sëriñ bi Eh, ndax da ngay eh, eh, moy sa borom mi nga xam ne defal na la ay mbir yoo xam ne yu dagan la yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daganal na la ko te bàyyi na la sa bopp ngir nga man koo def waaye nga ne fa ñukk yooyee wàcc fa yooyee dem soobu géeji mbon waaye soobu ak mooy yàlla goo xam ne doo ci jële jenn ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala lu dul meram rek nga cey jële loolee mooy mooy bàkkaar yi nga xam ne moom la la doon limal saa boo tàmbalee di soobu ca bàkkaar yooya kon sëriñ bi nee na yow yaa ci ak mooy suñu borom bi subhanahu wa taala te suñu borom daf la bindal ngir nga jaamu ko kon waroo koo mooy ci dara waroo sóobu géejug bon waroo sóobu li nga xam ne mooy li suñu borom subhanahu wa taala aaye ab jullit mu def ko yooyu yëpp da nga koo war a teet waaye yooyu yëpp da nga koo war a moytandiku ndax suñu borom subhanahu wa taala moom moo la Euh, cër yooyu nga xam ne ci nga mën a euh, mooy yëpp moom suñu borom subhanahu wa taala moo la ko defal te bim la koy defal itam defalu ko ngir danga ko fay defalu ko ngir dara waaye dala koo defal ci coobareem rek kon kooku na nga war a jëflante ak moom mooy sant ko te na nga ko war a sant ca euh, cër yooyee mooy nga xam ne xéewal la gum la defal daganal la ci ay mbir mbir yooye mu la daganal nag te muy yoo xam ne mën nga koo def te euh, bàkkaar du ca juddoo yooye mën nga koo jëf ca euh, cër yooye waaye lépp loo xam ne nag suñu borom subhanahu wa taala daf koo aaye euh, nit ki war naa kersaw di ko def digganteem ak boromam ndax suñu borom bi ko may mu man ko mu am kàttanu def loole suñu borom ko digal mu jaamu ko te mu war koo jaamu ci ak sellal bu baax a baax a baax waaye lépp loo xam ne moo jëm ci ak mbon itam mu war koo moytandiku te jëm suñu borom subhanahu wa taala rek tax moo tax mu ne wa jaala te mu def moom suñu borom subhanahu wa taala al baiha aji dagan xaidan muy aji uh, wommat ila jinaanihi jëmale ci ajjanaam ja uh, wala jëmale ci ajjanaam ya allati ya nga xam ne xawat làq na kulla ilaa bépp nee na suñu borom subhanahu wa taala moom moo def aji dagan li nga xam ne moom la daganal nit ñi ngir ñu man koo def bu ñu ko defee man caa am aw yiw man caa am tuyaaba man caa am ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala yàlla moom mooy ki nga xam ne moo ko def muy om mat nit ki jëmale ko ca aljana ja nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala lépp luy xeewal rek dëxañ na ko ca biir waaye lépp luy xeewal rek suñu borom subhanahu wa taala ko Euh, euh, mi ngi ko dencal jullit bi mi ngi ko dencal aji gëm ji mi ko dencal abi aji topp suñu borom subhanahu wa taala euh, mi ngi ko dencal aji sa wut ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala loolu lépp suñu borom subhanahu wa taala mi ko ko dencal ca àjjana ya nga xam ne ay xéwal kese moom moo fa nekk waaye àjjana ya nga xam ne xéwal ya fa ne suñu borom subhanahu wa taala fa ludut ñi nga xam ne ñoom la digal euh, ñu nungu di jëfe ndigal mu aaye leen ñu euh, moytandiku aaye yi nga xam ne moom la leen aaye muy euh, tereem yooye moo tax sëriñ bi ne laa tastain bul dimbalikoo bi niamillahi ci xeewali suñu borom bi subhanahu wa taala ala asyaanihi ci moy ko bal ne na li fi nekkay rum na nga sàkku bihaa ca xeewal yooye xayra ola ngën gi kawe sëriñ bi nee na bulu euh, bul euh, dimbandikoo dimbandi suñu borom subhanahu wa taala bul bul dimbandikoo xéewal yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala xéewale bul ci dimbandikoo mukk di ko mooy moom suñu borom subhanahu wa taala waaye lan nga war a def nee na da war a euh, sàkku ca xéewal yooyee nga xam ne moom la la xéewale nga sàkku ca gépp njub goo xam ne moom moo lay jëmale kaw waaye lépp yiw woo xam ne moom moo lay gën a yéege euh, euh, ca kaw waaye gën laa defal ay xéewal loola nga ca war a sàkku kon euh, li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa defal nit ki mu di ay cër wala mu di lépp loo xam ne moom la man di doon loole lépp nit ki daf ko war a def ak sant yàlla waaye bu ko defee ba pare moo xam ne xéewal la gu ko suñu borom xéewale kon waruta dimbandikoo ci xéewal gu ko suñu borom subhanahu wa taala xéewale muy wëlbatiku ca xéewal yooyee di ca mooy suñu borom subhanahu wa taala loolu li ñu ci mën a di déggee kon mooy euh, cër yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa defal moo xam ay bët xéewal la gula la suñu borom subhanahu wa defal waroo cee dimbandiku di ci xool lu araam waaye itam ay yoxo xéewal la gu suñu borom subhanahu wa defal waroo cee dimbandiku di ci mooy yàlla wala nga ci lor ay jullit waaye itam li nga xam ne moo di ay tànk waroo cee dimmandikoo di mooy suñu borom subhanahu wa taala te loolu mooy lan mooy di dox di jëm foo xam ne euh, yàlla daf koy aaye waaye di dox foo di jëm foo xam ne yàlla gërëmu ko nekki noonu itam war ngaa fexey ba sa làmmiñ wii ak xéewal la golo suñu borom subhanahu wa taala xéewale nga delloo ko ci njukkal di ko ci sant bu baax a baax di ko ci tudd moom suñu borom subhanahu wa taala di ci jàng alquran waaye waroo caa nekk di ca def loo xam ne da nga cay dimbandikoo di ci mooy yàlla li mel ni euh, di ci jaxase ay jullit wala li ki ni di ci euh, wax wax ju ñaaw yooyu yëpp euh, saa boo ko defee na nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf laa xéewale ba pare nga walbatiku nag jël xéewal ga nga xam ne moom la la xéewale nga walbatiku da ko ca moyaat ay nopp itam bokk ca xéewal ga itam ba tey mu doon xéewal goo xam ne bu ama am solo la nit ki itam war a dimbandikoo ci xéewaluk nopp yooyu di ca déglu li nga xam ne mooy li suñu borom gërëm lu ki mel ni alquran ju ni jàng wala xasida yu ñuy jàng wala fu ñu toog di fa tudd yàlla loolu lépp mën nga ko cay déglu waaye bul ca dimbandikoo di mooy suñu borom subhanahu wa taala te loolu mooy lan mooy di ca déglu loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko araamal wala di ca déglu loo xam ne euh, suñu borom subhanahu wa taala daf koo sib kon li nga war a def mooy xéewal googu nga xam ne xéewal la gu la yàlla xéewale te bim la koy xéewale amul lenn loo xam ne moom nga ko defal ba tax mu xéewalal la ko da koo def rek ci coobarey boppam kon la nga ca war a def mooy sant ko te na ko ca war a sant mooy digle yi nga xam ne moom la ci joxe ca ca cër yooyee nga sàmmal nga sàmm ko jëfe ndigal yooyee waaye tere yi nga xam ne moom la cee tere itam nga xam ko te mooy tandiku bu baax a baax euh, tere yooyee moo tax mu ne innal mubahaati naka aji dagani isa lam tufdi suñu bëbbut wala suñu eggalewut ilal jinaani jëm aljana fa tufdi kon danañu bëbb wala danañu eggale linnaari jëm ca sawara nee na yu dagan yi nga xam ne moom la la suñ borom subhanahu wa defal nga war koo jëfandikoo saa boo xamee ne euh, euh, euh, loolu la suñ borom defal muy ay mbir yu dagan moo xam cër yi wala moo xam lu mu mën di doon ci li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala defal muy loo xam ne euh, lu dagan la loo mën a jaamoo suñu borom subhanahu wa taala su fekkee ne jëfoo ko euh, ngir mu mën laa jariñ jëfoo ko ngir nga man cee sàkku ngërëmal suñu borom euh, mu man laa eggale àjjana na nga xam ne kon la nga cee jëf ab safaan rek la lay jural ay bàkkaar la lay jural te bàkkaar yooye bu fekkee ne jëfoo ci cër ya lu la eggalee àjjana di nga ci jëf lu la yóbbu ci ab safaan te safaan boobee moo di euh, sawara kon nit ki war naa fexe ba euh, li nga xam ne moo di xéewal yi ko suñ borom defal muy ay cër euh, ak lépp la nga xam ne moo aju ci yaramu doomu aadama bi mu fexe ba cay jëf loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala gërëm na ko waaye muy fexe ba cay moytandiku lépp loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko araamal ci moom wala mu sib ko ci moom ndax cër yooyu lépp loo xam ne moom nga ci def. suñu borom subhanahu wa taala day yebal ñoo xam ne ñoom ñoo koy bind euh, mu di ñoo xam ne ñoo lay euh, ñoo lay euh, ñoo lay saytu foo toll ak say mbir fu mu toll ñoom ñoo koy saytu kon loolu moo tax lépp loo xam ne moom nga cay def war nga koo xool waaye lépp loo xam ne moom nga cay jëf yitam war naa doon lu dëppoo ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala ndax loolee nga cay jëf muy lu dagan loola mooy la nga xam ne moo lay jariñ te mooy la nga xam ne ëllëg moo lay sauver yowmal xiyaam ëllëg moo lay yóbbu ca këru euh, aljana ga waaye su fekkee ne defo lool nag euh, bay euh, def ab safaan safaan boobee moom mooy li nga xam ne moo lay yóbbu ca sawara wala yaasu billah kon nit ki war naa fexe ba xam yoon yi nga xam ne mooy yoon yi baax mu xertal boppam di jëm ca jëm ca yoon yooye waaye fexe ba ràññee itam yoon yi nga xam ne mooy yoon yi ko mën a indil ay jafe-jafe mu fexey ba ràññee yoon yooyu itam di ko moytandiko bu baax a baax a baax mu xam itam ne lépp loo xam ne moom la man muy kàttan wala ak wér wala lépp loo xam ne moo aju ci yaramu doomu aadama bi euh, na xam ne euh, lu ci jag rek suñu borom subhanahu wa taala moo ko bëggee noonu muy xéewal goo xam ne war na ko cee sant waaye itam euh, xéewal googee nam ko cee sante mooy fexey ba la ca suñu borom dig la mu koy def waaye la nga xam ne moom la ca suñu borom subhanahu wa taala di aaye mu fexey bàyyi ko kon loolu mooy li nga xam ne moom la nit ki war a delloo njukkale suñ borom ci xéewal yi nga xam ne moom la ko defal waaye waru koo delloo njukkal ci di ko ci mooy waaye war naa fexe ba cër yooyu doon euh, mbir yoo xam ne Euh, euh, moo koy yóbbe ci euh, martaba ba gën a kawe waaye moo koy defal aw yiwu kawe kawe woo xam ne bu ëllëgee mu man koo jariñ kon foofu la ñuy taxaw di teg foofu suñ baaraam ndax foofu la bunt bi yem bunt bi nga xam ne moo doon wax ci bàkkaar yu màgg yi yi nga xam ne jullit bi war na koo moytandiku kon ñi ngi tuub bu baax tey jéggalu di wax ne in uridu illa al-islaah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum ala as-sahabati wa saadati kullihim ridwanu rabbil aradi was samawati ala as-sahabati wa saadati kullihim ridwanu rabbil aradi was samawati sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey